fatali nit ñi tuuti ci monsieur le maire Maguette Sène parce que egsi légui mais du mom rek a dafa am nu mu ñëwee parce que gis nañu légui ben camion bu def ay fer ay ciment mu ngi nële ñu koy wàccee fële ci armée gis nañu tam légui mu daaru ñu indil ay brouette sànke ak ki li nak ajjuma laa ko wax ak moom ajjuma bii passé barki démb tey la dimanche ajjuma lañ ko tey dimanche mu indi ko métti na nag xëj na mais dafa bëgg Karfa fonk Karfa moo waral lii te daf koo yàgg def ndax toog nañu fii monsieur le maire fekk suñu indi ñu fii ay bâche ak ay chaise jox ko jigéenu karfe yi boole ci euh, biñ koy tamit wax sunu waxi armée yi fii indi na fii cinq tonnes de ciment trois cent kilos de fer indi ci cent cinquante mille yooyu yëpp ay def def loolu kon monsieur le maire Maguette Sène yàgg na di defal Carfa Maguette sen Carfa ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant di la xamal na ñëpp ngi sa gannaaw sama frère tey si suba lañ ma woo ne ma monsieur le maire Maguette dafay ñëw ma ne kenn du ma fi jiitu ndax monsieur le maire Maguette Sène ak Pape Maysa lu ñu bëgg man bëgg naa si lu ñuy dox ci laay dox monsieur le maire Maguette doxul si lu dul développement. doxuñu si wax doxuñu si dara si jëf rek la ñuy dox jëf rek ñëpp a gis te yow nag monsieur le maire Maguette Sène yaa ngi jëf yaa ngi def li nga man yaa ngi ñuy gestu yaa ngi ñuy bàyyi xel. xale yi nag da nga di def ngir yàlla rek te yàlla rek a tax seetuwuloo ko bëtu kenn seetuwuloo buntu kër gii sama buntu kër la xooloo buntu kër gee sama buntu kër la yéen da ngeen di def ngir yàlla te yàlla tax yal na leen yàlla boobu jàppale yal na ngeen toog bay toog di ku nekk di takk jabar jigéen ñi sëy ci barke yonent man nag sama xol a fees rek laay wax monsieur le maire suñu foyer bii dañ la ko yàgg wax def na fi lu ne lu ne def nga ko fi fàttewuñu ñu jëf waye foyer bi suñu keetu foyer ñew nañu ñaata yoon pour récupérer ko amuñu foyer bi amul douche foyer bi amul courant bëgg nañ ci liggéey waye mënu ñu ci liggéey té foyer bi amul kër bo gisé dëkk bi surtout Kàrfu bu mo de nekkon dëkk bo xam mo gëna arrière bokul ci dara figurant la woon ñu ko daan defal ak du kaas dara te loolu ñan ñako andi woon ndax bari na naroon nañ am leader mais dañuy dem ndax seen poche bopp te ñun dañuy bañ loolu bëgg naa monsieur le maire su boy décider dara teg si taawal ñun dañoo war a teew bokk te dëkk baa ngi tax a du suñu poche bopp ñun ndax ñun lu ñuy natt 200 200 par dimanche pour dëkk bi la soxlañu si dara dëkk bi moo ñu ñor suñu ñàkk ak suñu deret nangu nañ sim ko si cere kat bugu ndax moo ñu ko jaral te ku fi pour utiliser ñu arme politique da ngay nax sa donner un ñu am yaakaar ñu si kenn mais monsieur le maire marché spécial ndax da nga nekk liggéeykat di defar moo tax dañuy ànd jiboo dooleel la boo ko bàyyee tamit ñu bàyyi la ndax loo moo ñu tax a jóg liggéey kese lañ gëm ku baille baille bàyyi nañ la monsieur le maire dañu am ay projet yoo xam dañ ko def dañ ko bëgg def ci dëkk bi mais dañoo ñàkk moyen même bu ñëwé baxna dinañ jam mais tamit lo gis nak fokk nga am kula jappalé té gis nañ lu ngay liggéey nga cee ngaalaama gis nga tali bi bëri na suñu mère yo xamné bu njëkk ba dañu euh jël ay def si ay mango di ko jaay bu mbuur mais légui si bu tal lañu tok mi jar té loolu ya ko waral évolution amna kon ñun nag Kafougoum porte entrée la ak porte retour kon lañ koy defee bu mu seet pour ñu jox ñu cër cër boobu nag ñun xale ñoo ko yore monsieur le suñu terrain bi am na espace te ñoo bëgg nga collecteur ñu ko ba pare mu am terrain basket ci wetam ndax am na espace bu rëy ndax xale yi dañuy déplacé ba Saly dañuy guddee àll di ñëw te loolu bu ko defee xale duñu guddee dañu ñëw entraîner ci loolu pour loolu pour sport la parce que association euh, association la culturelle et sportive la loolu bëgg nañ ko. beneen bi suñu jardin public bi dañoo bëgg nga yokk ko parce que tuuti na torop bëgg nañu nga yokk ko ba nga xam ne dinañ mën a toog dañuy réunir foofu ndax quatre personnes cinq personnes bu toogee rek ñeneen dañuy taxaw wala di ut chaise bu ñu sañoon nag euh, nga yokkal ñu loolu ndax xam naa ni liggéeykat nga moo tax ñu am fit di la ko wax. gàmmu ñu daan dem yëpp dañu doon tàllal suñu loxo naan monsieur le maire nee na ngeen ñaanal ko yàlla mu def fi lu kenn deful. monsieur le maire tante yeeg tout la ko parce que boobu da nga koo gëm yàlla fekk la Il 22 villages village bu a 5 quartiers 6 7 quartier bu ñu dem bala ngaa wax wala balaa sa nit di wax quartier ba wax ne monsieur le maire jërëjëf y'a fi def lii y'a fi def lii yaa fi def ba action ci 5 quartiers Je kon discours dañ koy changé monsieur le maire ko yalla. wax leen alhamdulilahi rabbil alamin ngeen santale ko yàlla dinaa ñëw nag ci lu tax ñu koy wax ñu santale ko yàlla monsieur le maire discours yi ma fi dégg yëpp alxuraan la parce que ñi fi wax ñëpp dañoo fàttali li nga def li tax nag ma ne nañ la santale yàlla mooy dañoo soxlawaat deuxième mandat pour li fi manqué nga def ko ndax yàlla nee na bu ñu ko santee mu dolli ñu te fii ci Malicounda wax naa ne opposition bima ma fiy dégg kenn ñimewul woote sa penc parce que ku ci woote sa penc boo dee gor di nga ñaq parce que di nga dégg jërëjëf Maguette Sène ba ba moytul di nga daw fa woote ba kon la nga def mooy di ñëw woote nga borox toll pour dugg ca woote ba waaye ca ginnaaw ngay toog parce que jërëjëf Maguette Sène ba dina dina dina bënn sa ñun nag sunu sunu fie sunu engagement ci yow duñ ci dellu ginnaaw parce que bi Omar di wax. dañoo gis ni c'est un homme d'état moo dirigé commune malikunda parce que Omar dafa wax lu am solo monsieur le maire bi nga wax ak moom daf ne monsieur le maire may sa jëlal note xale yaa ngi toog cekkure mi ngi toog monsieur le maire may sa jëlal note may jël note matériel de nettoiement alignement village bi arme les cimetières lépp ñu jël note fi mu toog mu son directeur de cabinet mi ngi nii toog ànd ci délégation bi ni ko kaay mu ñëw mun ko dimanche damay dem nangam yaa ko chargé wu lii ak lii ak lii njàmme yaa chargé wu lii lii ak lii ak lii le maire coordonné li lii ak lii dimanche damay dem Carrefour te lépp bëgg naa mu jiituma Carrefour ma fekk fa mais loolu boo boo boo amul benn niveau bi ni ko ni ko ni ko ni ko tontoo foofu na waxee mais mënu diriger ci commune kon bu ñu nangu sunu commune dellu ginnaaw. eh ak fan tas mbag li ngeen def de rafet na lool allah te amna na yaakaar lool dëkk bu nek bo sañon gam am jeune yu melni dekk ni lañ koy taxawoo dekk ba la gëna avancer nekul ci dem lijeenti indi dedet lijeenti len yeen sen bop ba pare kuy indi fekk len ci man loolu la gëm. ba dama bëgg nit balaa nga may woo ci mbir ma fekk la ca déjà te yéen dafa mel ni da ngeen a comprendre man politique bi ma jël temps yi ci wàllu seetal dëkk bi lu nekk daj naa ko côté bale ak côté bii indi fi ay camion yu def fi 10 jours matériel boobu fu ñu yendu 900000 lañ leen di fay parce que ay bulle la ay camion la yoo xam ne journée bi 900000 lañ daan fay. ay millions yu bari lañ fay pour que ñu def ñu nettoyer mbalit di nekk ci zone bi bu ñu defee loolu ba pare dañuy monter comité de salubrité ba pare def sensibilisation donc yéen nag ma ñëw fekk ngeen def loolu yëpp yéen kay yéen raw ngeen. kon El Hadj yow mi jiite commité de salubrité bi dama laa bëgg a xamal ne noyau dur a ngi nii booy liggéey ñun li ñun li ñu bëgg mooy comité de salubrité yi dañuy bëgg di ko nekk ñu ca nekk ba pare. lenn moo leen manqué ci système bi te incha allah dina tàmbali je crois que mardi lundi ah voilà li jënti naa benn oto mbalit oto mbalit boo xam ne bii yéen heureusement que organisé wu ngeen yéenay xool point de collect yan ngeen di yóbbu seen mbalit yëpp nga xam ne bu ñëwee day yomb waaw bu ko defee problème mu fi ñuy tuuree ti dootu amatul. parce que oto bi dañ koo jël day continuer nekkul rek benn opération pour benn jour de mais tous les lundis jigéen ñi seen mbali yi nekk ci ruq-ruqaanu kër yi yi ngeen génneegul def leen ko ci ay saako ngeen xool ay point de rassemblement ngeen def ko fa bu oto bi ñëwee mu gaaw tous les lundis parce baax na wut ay pol lu baax na waaye nag lu koy yóbbu ci àll ba loolu beneen mbir la. ñu ñëw indaale leen matériel de nettoiement mu ngi nii ma xamal leen ne nag programme de nettoiement bi ñu dinañ ci ànd ak ENDA ENDA énergie xëy na lii premier loola mais plus tard dinañ signaler ENDA ne leen ne leen am nañ fii comité bu dëgër parce que loolu dafa am solo donc matériel de nettoiement baa ngi fii moustiquaire yaa ngi fii moustiquaire yi nag jigéen ñee ko moom ndax ñoom ah. mu ngoog association bi yéen lañ koy dénk ak Omar ngeen discuter ji mais ma leen di xamal ne centre socio collectif bii ñuy tabax incha allah ñoo koy bëgg a àggale bëgg nañ avant fin ne année mu àgg ñu inauguré ko mais bii kii yéen a ko moom parce que gën a gën a jege gën a yey ah ñu noonu nag dafa bëgg ñu fee installé ci seen wetu taatu dëkk bii lu toll nii. ba pare ngeen ci nekk kat heureusement bi jeunes yi organisé wu en association parce que lu mel nii tamit cër lu mu rëy rëy te organisé woo pour dem jëli cër ba doo ci jot heureusement bi ngeen organisé woo donc lu bari yéen a ngi koy jooy waaye solution yu bari dina am fii ndax ay salle yu nekk fa ay salle de formation pour les femmes ay salle de spectacle ay bibliothèque salle de réunion salle de formation lépp a ngi foofu. Maguette mi, mii Maguette Sène mii Maguette Sène mii Maguette Sène si ñaan ci ndox mi dëkk taas kon loolu lañ bëggoon a wax léegi doléance yi ngeen fi wax am na doléance yoo xam ne yii dinaa yónnee équipe ñu xool ko ñu xool ko buñ ci manee wut solution bu gaaw ñu wut ko muy place publique bi dinaa fi yónnee ñu xool ko ni ñu ko mën a yokkee lu ngeen mën a waxtaanee ak voisin yi ba ngeen ko mën a yokk muy parce que yéen ko bokk moom rek waa dëkk bi la fii day rafetal rek ñu def ko nii moo gën ñu fay tuur mbalit waaw kon dinaa fi envoyé kenn mu xool ko nu ñu ko mën a yaatalee ba mu gën a yaatu association bi fa mën a réunir commune foyer de la femme bi comme ne ngeen problème mu toilette la ak problème courant ak ndox dina fa envoyer tamit équipe ñu xol ni ko réfectionné incha terrain football bi nak lolu leneen la loolu mënuma ci prononcer parce que lolu affaire conseil municipal la parce que bu fekké ni c'est lourd ay investissement yu lourd mënuma ci décider tout de suite il faut ñu ñew xol ko dem conseil municipal discuter ci ba créer ñu ci am solution mais ñaar yi mom inshallah allah dinaa équipe ñu xol ñu ci indi solution nu mu gaaw Euh, alignement bi tamit ñi ngeen yónni woon waxoon nañu ko effectivement dëkk bu dee màgg dañ ko war a aligner parce que du ñëpp ñoo yem xel am na ñoo xam ne ñi xamuñu njariñu mbedd te mbedd daa bokk ci dund seen mbedd yi ni ngeen di nettoyer pour mu rafet il faut mbedd yi yaatu oto fu mu mën a jaar jaar fa normal waaye mbedd yu mel ni su suñu dëkku mool yële day yàq dëkk mbedd yu sew nga xam ne benn oto sax pour mu jaar ci problème la loolu day yàq dëkk. donc ñoom Omar waxoon nañu ne dañoo bëgg alignement wax naa ko monsieur le maire dañu yónnee fii géomètre ñu aligné ko ba nga xam ne mbedd yi day génn normal nga xam ne délégué de quartier bi day am plan bi képp kuy tabaxat yi nga respecté plan bi amul déborder ci mbedd amul puus mbedd amul yàq mbedd je crois que loolu aussi dafa bokk ci liy rafetal euh, dëkk may tëj di leen xamal ne ñun suñu yitte ci Malicounda mooy ne Malicounda yokk te yeen am ngeen ci chance parce que da ngeen a sës ci xolu Malicounda nga fa bëggu dans 5 ans fi mooy doon capitalu Malicounda ku nek xam ne péage bi li fi wara taxaw ci infrastructure bu fi taxawé fi benen benen quartier lay doon donc ñun dañu am vision bobu ci malikunda, moy dekk bu nek bo doxé 3 ans wala 4 ans wala 5 ans bo fa demaatee do xamé dekk ba loolu moy sunu taxaway ñun donc ma bëgg loolu yeen ñëpp ngeen ñu ñu tegu ci amna ay wax yu bari jatt tontu parce que jëf ak wax du ben ñu dañuy wër di jëf waxuñu man fu may dem suma fa jëf té jëf damay bëgg bayyi ba mëna jëf do fa dem waye wër di wax amul njariñ je crois que waa Carfa yewu nañu yewu teg xam fan la seen ñariñ nek té fofu la ñuy aw té fofu ngeen aw yalla ñu yalla dimbali électrification bi extension bi je crois que tàmbale woon nañ ko. waaw. dañ ko réceptionné gul. waaw nañ fa xool nuñ ko jéem a réceptionné bu ay euh, waxoon naa bi ngeen ñëwee sama bureau waxoon naa leen ngeen contacter Cheikhou pour que poteau yi amul ampoule ñu ñu changer ampoule yi def ci ay lampe ñëw na fi démb. voilà loolu dama bëgg ngeen accélérer ko parce que poteau boo ko taxawalee te defoo ci lampe day mel ni amul courant te fekk courant baa ngi ci. donc lolu nañu fexé quartier bi lèr waaw dañ fexé mu lèr nañ waaw donc ciment bi ak fer bi nit ñi wax nañ ko voilà je crois que wacc nañ ko pour cimetière yi la fi may tajé moy contane ci tableau bi ngeen ma may waaw man dama bëgg aar nak waaye ko defar c'est un grand artiste œuvre bi du œuvre mu ndaw dé non du œuvre mu ndaw waaw parce que man damay jënd ay tableau xaalis bu bari di ko pour sama direction bi ma nekk Dakar Kalidou Kassé xam ne c'est un grand peintre niveau international jënd naa ci moom gis tableau rek yàggul mais boo xoolee tableau bi di nga xam ne haute qualité la donc xale bi ko dessiné ci ñoo koy voilà ñoo koy félicité bu baax a baax a baax. tàccu leen ko ko waay waaw waaw. kontaan naa ci trop wax naa ko dinaa na ko encadré. bu ko defee ñu yóbbu ko mairie ba ca hall ba ñu takk ñu takk ko fa parce que lii chef d'œuvre non seulement dafa rafet mais symbole la parce que bunt bu ñu lay tijjiloo loolu tamit dafa neex ñun bu ñu sañoon bët bu di ubbi ay bunt rek di inauguré waaw donc bu yàgg dara daañu ubbi bunt bi ak yeneen i bunt incha allah yàlla yàlla ubbi ñu bunt yëpp kon foofu lay jeexalee di wax ne. waaw usine usine saabu baa ngi fii à zéro de fa loolu tamit yéen ko moom ak jigéen ñi waaw donc fi may jeexale rek mooy di leen fàttali ne président Macky Sall li ma man yëpp ginnaaw yàlla moom la li ñu mën bu kenn jaxase seen xel ci bëgg leen màgget seen bañ loo leen Macky Sall soow ak suukar la boole naan wala boole tuur yaakaar naa ne. soow bu ñu suukar ba mu saf mm. naan naan moo gën a wóor pour ko asalaamaaleykum wa